productions qui sont attendues journalièrement. Nous ne sommes plus, nous ne sommes plus ensemble, nous ne sommes pas entendus sur la date de production du first gaz. nous ne sommes pas non plus entendus sur la stratégie commerciale par rapport à l'exploitation de ces ressources en hydrocarbures. Tandis que BP avait privilégié l'exportation, nous, nous avons privilégié la consommation du gaz local, donc pour une consommation domestique, parce que nous avons nos centrales alimentées et nous voulons que nos populations bénéficient donc de, de l'exploitation de ces hydrocarbures. Et enfin, pour Sangomar, euh, le projet aussi est à un taux d'exécution de 90%. Euh, le navire qui est en train d'être fait à Singapour euh, est presque terminé il est attendu aussi vers la fin de l'année, début de l'année prochaine, euh, sur le site. Euh, donc tout se passe bien pour les trois projets. Et avec BP, ça arrive dans l'industrie. Si nous, ne sommes plus nous ne sommes plus ensemble, nous ne sommes plus d'accord, mais on se serre la main et puis euh, chacun se souhaite bonne chance pour, on se souhaite bonne chance pour, disons, faire un chemin de notre... Chacun fera son chemin, le chemin qui lui plaira et qu'il pense être le meilleur pour lui de son côté. Voilà ce que je voulais dire pour me résumer en français sur les différentes questions qui ont été posées. may sant bu baax di président euh, assemblée bi monsieur le président Manglé Sante sant di la gërëm ak di honorable député Yifi Yeketi Kadou, kaddu ci seen ay ñaan ci tamit ci seen ay conseil ak ay recommandation ci li ñu taxawal ci euh, penc ndaw réew mi askan bi yëpp am ay laaj yu am solo yu fi jib ma mën koo tënk ci ay poñ yu yii ma nar a lim ba noppi leeral ko bi ci jiitu mooy wàllu électricité bi xam naa courant yitteel na ñëpp ndax dafa am solo moo xam courant bi jëm ci wàllu li ñuy fay te ñu lé wax léegi nii factures yi dañu jàpp ni ni mu chéré xaw na métti tuuti ñu war ci indi ay tontu waaye tamit war leen ci xibaar xibaar bu bees boo xam ni mi ngi jugee ci président de la république Macky Sall war leen leeral tamit li jëm ci wàllu pétrole bi ak gaz bi fan lañ ci toll ak lan lañ ciy xaar waaye ñetteelu poñ bi nga xamante ni tamit dina yitteel euh, askan bi yëpp mooy fan lañ toll ci indi courant bi ci gox yi nga xamante ni jotuñu koo am. li jëm ci wàllu courant bi dama leeral léegi ci nasaraan ni ni ñuy toggee courant bi téeméer dërëm bu ci dugg juróom-ñaar fukki dërëm yi dépendul ci ñun ndax juróom-ñaar fukki dërëm yi mi ngi aju ci li ñuy jëndee bitim réew muy euh, fuel bi ñuy dugal ci central bi pour mën a defar courant bi kon bu fekkente ni barilu petrol bi te ñun suñu pétrole tàmbaleegul génn barilu pétrole bi dafa yokk à la normalement courant bi dafa war a Sénégal mais si le ni président la décision ni légui dina dimbali nit yi ci li ñuy consommer ci électricité benn partie bi ma jappalé len ci ba ñu mën ko attan ci fay kon bu ñu électricité facture yi bu ñëwé wala woyofal bi attan at mu daaw wax nañ ministre des finance mën na ko confirmer léegi yegg na ci juróom ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk muy 750 milliards ren dinañ dem ba yegg ci li mu def ci secteur énergie bi juróom benn téeméeri milliards yoo xam ni daf koy jël di ko dugal ci secteur bi saa yoo indee juróom-ñetti dërëm fay ko ci sa biir facture jàppal ni juróom benn juróom-ñetti dërëm yoo def fukki dërëm ak ñaar président ñëw na dugalal la ko ci pour jàppale la ci fay courant bi wala li ngay dugal ci woyofal donc bu bàyyi woon da ngay dem fay ñaar fukk waaye ñaar fukki yi boo defee juróom-ñett fukk ak ñaar yi moom mu indi la ko pour jàppale la pour que mu gën a ba pour mu bañ a si yow waaye dafa am foofu lu ma fi bëgg leeral tuuti tamit baax na trop ñuy wax ni nit ñi ñu ngi leen di dimbali ci subvention may leeral ni senelek tey mi ngi am ñaari million ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay client million bi ak juróom benn fukk yi ñoom dañu nekk ci li ñuy wax premier tranche seen doole bëriwul waaye li ñuy jël di ko utiliser ci courant tamit bëriwul ñu président daf ni lu pétrole yokk-yokk lu ñuy toggee courant lu mu yokk-yokk lu mbir yi cher cher ñooñu bu ñu teg dërëm ci li nga xam ne moom la ñuy fayeeku nañ leen jël ñu dimbali leen ba woyofal liñu wara fay ba duñu am dañ leen di subventionné totalement amul lenn lo xamanteni ñom bu pétrole yoké wala leneen yokk dinañ leen ko ci yokkal dañ leen di bayyi non mais ñi nekk ci ñaarelu tranche bi gën a am touti doole wala am nekk ci ñettelu tranche bi ci poste paiement nga xamni am nañ ay climatiseur am nañ ay congélateur mais bu le président fayalee fukki dërëm ak ñaar wax deug yalla juroom ñetti dërëm nga gorgol touti nga indi ko ndax li koy waral soko ko deful boo ko deful tey boo demee ci dëkku yi nekk ci biir dëkk bi ñu koy wax dëkku euh, àll wala dëkku kaw man ci laa bokk parce que xombul laa cosaanu alors léegi su fekkente ni dangay nga ñëw wala dëkk yi wër euh, nekk wër Ziguinchor wala ak fu mu mun munti nekk ci biir réew mi su fekkente ni ñooñu dañ fa bëgg a yóbbu fépp courant su fekkente ni xaalis bi yëpp alal bi yëpp dañ koy jël di ko fayee ay subvention ñooñu kañ lañuy am courant donc il faut que waa ndakaaru ak dëkku taax yi bu ñu amee courant ñi nekk ci dëkku àll bi amaguñu courant ñu sedd leen ba bu ñuy subventionné tamit ñooñu mën a am courant alors loolu moo tax subvention bi naam ñi ngi koy continuer def mais président wax ni nañu baral ni ñu fexe ba courant bi yegg fépp ci dëkku àll yi moo tax bi muy ñëw moom fii ci bokk réew mi junni ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukk la fekk ci ay dëkku yu nekk ci biir euh, réew mi ñu koy wax les village ñu amoon courant tey bu ñu ko xaymaa mu ngi ci juróom benn junni ak lu ëpp ñaari téeméer yoo xam ni indi na ko def na ko courant ci ay dëkk dëkkaat kon jëlee na courant bi ci 1660 villages yóbbu ko ci 6200 villages ba tey nag dina am lu des parce que comme niñ koy waxee ci olof ndar xëyul sotti ku la wax ni la ku la jëleelee courant ci junni yóbbul la ko ci juróom benn junni bu la nee dinaa la ko yóbbul suba ci fukki junni mën nga ko gëm yoon bi nag ci loolu lañ nekk alors maintenant pétrole bi ak gaz bi bëri na léeg-léeg luñ ciy laaj te c'est normal bëri na lu ci sénégalais yi bëgg a xam c'est normal mais foofu dama bëgg tamit invité te tey seetlu naa ni waxuñu ci commission am ñu ci waxoon tey waxuñu ci damay invité parce que nous qui suñu njariñ moy njariñu Sénégal Amna ay ak ay question yo xamni di wax lu ci avons baaxul ndax da ngay am alal bëgg ñew duggal ci alal pour que ngeen seddo su ma don yo avons damay wax ni bay seddo la pétrole bay seddo la yow da ngay am sa mais amo jiwu amoo fas amoo machine amoo surga mais tool rek nga yor léegi nit jóge fële indi fasam indi machine am indi jiwam indi surgaam ba pare indi añam yow léegi nga toog di xaar doo def dara yow mi moom tool bi dangay toog rek di xaar doo def dara moom mu bay ba mu ñor ngeen séddoo pétrole noonu lay fonctionner te ñi doon wax ci njëlbeen bi ni 10 pour cent lañ ci am xamuñu dara ci pétrole pétrole fonctionné wul noonu tey boo ko doon xayma ci wàllu natt jigéen yi bu ñu bokkee natt dañuy wax ni Sénégal ñetti loxo la am ci pétrole ñetti loxo.